loolu moom xamuñu kañ la koy wàcc ak saa su koy wàcce loolu ci moom la aju waaye nag bu wàccee ba laal suuf wal ga muy wal wala ngaan fu mu war a jaar ak fu mu war a yàq ak fu mu war yàq naka lañ koy defaree ba du yàq loolu du mbiru yàlla yëful nit la kon jafe-jafe yi Tuuba gannaaw ba ñu leen massawoo di bokk ak yéen tiis weeg naqar weeg jafe-jafe yëpp di leen massaw ñi ngi ci interpellé ñi nga xam ne ñoo fi nekk fukki at ak ñaar yor réew mi at mu ne su màggal jotee ñu ne def nañ fi nangam ci ay milliards ci wàllu ndox meeg assainissement beeg lu ne te tey la wàllu gën a ay loolu lépp nekk loo xam ne gis ngeen tolof tolof yi tey nit ñaa ngay tëmb lal yaag lekk yaag yépp a nga tëmb Tuuba mu nekk naqar parce que dafa ñaaw ci gis dafa nekk loo xam ne gàcc la dafa nekk loo xam ne ku ko gis sa xol jeex ndax ay jàmbar ñoo fa dëkk ay fàkk jàmbaar yu fàkk tëdd ay liggéeykat ay nit ñu nangoo sonn ay nit ñu am conviction nit ñu mën a taxaw donc ñu ñu war a taxawu lañu ci defaree leen dëkk boobu ba mu nekk dëkk boo xam ne dund ba dana yomb yell ci ñoom ña fa dëkk loolu yéene bu sori la boo xam ne yàgg na ci man ma di ko wax di ko mébét fu ne af defal leen assainissement bu baax a baax a baax a baax ñoom waa Touba ba ndox dootul taa fenn loolu nag liggéey la laaj waaye indi leen ndox mu sell mu ñu mën a naan di ci def seen lépp ñu di ko fay bu ko laajee ñu di ko fay waaye ndox mu sell muy ñaareelu mbir ñetteelu mbir bi ñu def fa benn réseau de transport urbain bu moderne maanaam sareetu mbaam ya fa nekk fas yaag rim ya fa nekk oto yu amul assurance yeeg yu màgget yi cappax cappax jooju nga xam ne dara joxu ci ñu seppi ko ut benn réseau de transport urbain moo xam Dakar dem dikk la ñu tuddee ko Touba dem dikk wala mu nekk benn réseau ferré quartier par quartier ñu dagg raay def ay tramway comme en Europe tramway ay genre saxaar yu ndaw benn bopp ñaari bopp ñuy wër Touba gépp ñu électrifier ko fu waay bëgg a dem dem te doo fay lu bari parce que Touba du dëkk bu ndaw dañ ko war a dafa am réseau de transport bu fiable. loolu mooy euh, ñetteelu poñ bi nga xam ne priorité la pour ñu def ko Touba waaye dafa ay jànguwaay yu baax a baax a baax ay école yu baax a baax nit ñi dem parce que seen doom yi sonn nañ ci dem Mbàkke rang bi jël oto doomu Touba li muy daj pour mën a jàng dafa metti te dañoo bëgg xam-xam te xam bu bon amul jikko bu bon mooy am waaye xam-xam bu bon amul xam-xam yëpp a baax lu waaye mën a jàng na ko jàng yàlla néewul nañ jàng li nañ bàyyi nañ buñ jàngalee xam-xam yëpp a baax ndax baax ci baaxu xam-xam ni ci nga xam ko lu bon sax da ko war a jàng ba xam lu bon la ndax boo ko jàngee ba xam lu bon la da nga xam ne lii lu bon la xam gi ngay xam lu bon la mooy tax nga mën koo moytu waaye loo umpale mën na laa lor kon xam-xam a baax jàng lu bon sax baax na ndax day tax nga xam ne lii lu bon la nga peeg ko moo tax ñàkk jàng musiba la kon dañ faa def ay école yu baax nit ñuy jàng ñeent yi daal man bokk na ci loo xam ne tey su ma amoon sañ-sañu ci réew mi yor signature ñeent yi moom dinaa fexe ba mu am Tuubaa ndox mu sell mu ñuy naan assainissement ki ndox mu tilim bi ni ñu koy defaree ba du dugg ci kër yi yàqu ñu dajale ko fenn di ci bay waaye def transport dem ba dikk bi oto ci biir Touba ci quartier yi yaatu yi wala boog réseau tramway nit ñi dama ko ñëw transport bu yomb nit ñi dama ko ñëw quartier yi par quartier quartier par quartier ak njàngukaay yu mucc ayib ñeent yi daal bokk na ci loo xam ne man maa ngi koy mébét ci Touba kon gannaaw bañ ma soow yéen waa Touba lii mooy sama mébét man ak Akhenaton ci Touba jàpp ne mënta ñàkk. kon bu ñu paree ci Touba bayu leen massawoo di ñaan tamit mbokk yi ñu am solidarité ci jàppalante gi waaye tamit ñu enquête def ay audit càmbar la ngeen a dugg na fa ci ay milliards ci ay 2000 ba léegi 2000 ba 2024 ñaar fukki at ak ñeent yoo xam ne at mu ne bu màggal jotee ñu jaagar jaagar yi ñëw toog toog ak bi def nañ fi leen ma lima lima lima lima loolu ñuy lim nañ ñu wax fan lañ ko def fuñ ko dugal. ñaar fukki at ak ñeent at mu nekk nga ne dugal nga ci ñeent fukki milliards bu néewee ba new juróom fukki milliards bu néewee ba new at mu nekk mbooloo mi loolu boo ko xaymaa daanaka àgg na ci junni milliards yoo xam ne def nañ ko Touba Touba nag ak sennal la ak sennal la goo xam ne milliards boo fa def rek ndox mi yóbbaale ko wala boog dafa am fu muy dugg loolu état bii nga xam ne moom la ñu fal. jiital ci Bassirou jamaa Diakhar Faye mii ngeen gis ci nataal bi te mu yor bale bii nga xam ne day bale. dañoo bëgg moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu baleel ñu ndoxum Touba mi baleel ñu mbeddi Touba yi bale ko ba milliards yi ñu ne dugal nañ ko fa ca temps Ablaye Wade ba ca Macky Sall ñu topp ko xool ba xam fu mu dugg dafa dugg ci askan wala dafa dugg ci ay poos kon audit enquête waa ONAS ñu nekk ci réew mi ci nguur gi ñëpp état bu fi mën a jaar lañ fa dugal yëpp nañ ko audité ba mu leer ñu xam ndax ci askan wi la dem wala dafa dem ci ñenn ci askan wi moo xam ay politiciens lañ moo xam ñenn ñi ay petits marabout lañ moo xam ñoo xam. mais nañ ko audité ba mu leer du ma accuser kenn waaye nañ ko topp ba mu leer ñu xam parce que nag alalu réew mi la alalu réew mi askan wee ko moom ay sëriñ moomuñu ko ay politiciens moomuñu ko ay homme mu ñu ko askanu Sénégal rawatina waa Touba alal jee dugg Touba ñoom ñoo tax ñu dugg fa def waaye defaluñ ko keneen kon loolu maa ngi ci xaar président Bassirou Diomaye premier ministre Ousmane Sonko gouvernement bi ak it assemblée bu bees bii ñu waaj a dëgmal pour taxawal ko ñu fexe ba lii am Touba bañ faa amati. ci suñu ay yii nga xam ne tàmbali nañ ko ñu saytu xayma la fa am d'abord la nga xam ne fa lañ ko fekk ba mu indi jafe-jafe yi ñu xayma ko ba xam ku nekk loo def la ca yoon war a def mu def ko ci ñu teg nag ay doxalin yu bees ak ay pexe yu bees fexe ba assainir Touba moderniser ko une ville moderne ay rima ki ay saretu mbaam yi daw Touba ki ay mbedd yu bari suuf bu taw bi lépp euh, la fa nekk ko néew ci ay caniveau suuf sa dugg ca ba mu fatt euh, amul assainissement amul ndox mu baax amul euh, transport bu baax amul jàngukaay amul école loolu man lu ma naqari la loolu pour man jaaduwut loolu wërta am Tuuba voilà